am na aw am na yonent boo xam ne. am na yonent boo xam ne. aw nitam aw nitam. ci ngelaw leneen rayee. moom la neex moom la neex. ñun mu may ñu. ñuy dund ngelaw ni ñu neexee da ci dagg da denc lan mooy dagg ngelaw denc eh, li ci pneu oto yi ak li ci pneu vélo yi loolu da ngaa dagg ngelaw denc mu mën laa yóbbu foo bëgg a dem ngelaw booba leen day jeex bu doosam jeexee nga koy peeral lay peeral pono ba xamuloo ko doos dana lekk samburière bi oh, dama sama borom ci kattanal yàlla mu peeral oto ba nga ne waaw oto bi peeru na fekk bu peeru lool samburière bi dina yàqu ndax lu nekk rek am na àpp lu ne yàlla wutal na ko àpp kon xoolal doomu aadama moom rek la yàlla may ni ngalaw sobee ni mën a fexe ba denc ko. mu mën a fexe ba denc ko. ba mel ni moo ko créé. ba mel ni moo ko créé. te créé wut ko. yàlla mooy ki ko créé. mu def ko ci benn gamb. ngay puus ngay puus muy dugg. zaalika huwa al haqq. kooku mooy yàlla. lim ñu ko ci ngelaw li. ma yéene ne ko ci lépp nag ndox maa ngi nii su ko neexoon ndox rek lay bind waaye defu ko kon oto du daw mu bind gasoil mu bind essence pour pour kan oto bi ngelaw li ak ndox bi ak essence bi gasoil bi ñoom rek ñun ñoo ko bokk ñun doomu aadama yi ñun ñoo koy yëfandikoo ñu xelal doomu aadama nde ko xelal da xelal tubaab da ko xelal ba liggéeyoo ko oto.

tubaab moom la jël. tubaab moom la jël. te li pepp yi pepp yi dijj yooyu. pepp yi dijj yooyu. yu ñuul ya ak ak yu weex yi ni ngeen ko gisee. ak yu soon ya ak yu soon ya. ca la yàlla tabaxee Adama. ca la yàlla tabaxee sunu maam Adama. ca la tubaab yi defaree oto. ca la tubaab yi defaree oto. oto ak Adama benn lañu. oto ak Adama benn lañu. Adama ñeneen ci tànk la am. Adama ñeneen ci tànk la am. ñaari mooy ñiy dox ci suuf si. ñaari mooy ñaari tànk yi dox ci suuf si. ak ñaari loxo yi. mu jeex tàkk kon oto moom nit lii dawal doomu aadama mooy dawal oto loolu du xam-xamu tubaab jàng nañ ci Amérique ci ci ci benn téere jàng nañ ci benn téere benn waay boo xam ne benn waay boo xam ne daf doon gëstu am xam-xam am lu muy liggéey buy bind rek ci li bëgg a xam fu mu war a jaar bu génnee du gis benn professeur bu ko jàppale mu nekk ca loola ba mu yàgg mu jaaxle lool génn ba mu yàgg ñëw fekk tableau bi liñ ci doon bind liñ doon étudier da ko jàng fekk ñu remplir ko ko bind ko ba mu fees mu liir ko mu dëppoo la mu bëggoon mu effacé ko. weer laa bëgg lii dinaa xam kan moo ko mu dem génn fekkaat ñu defar ko mu dem troisième fois bi dafa làqatu ut benn bën bën da xool gis liir bi mu tegoon ci kaw lal bi moo wàcc lal bi jël kere bi leen doon gëstu yëpp mu bindal ko ko nekkaat liir tëdd ci kaw lal ba kookan la rabbul izzati wal jabarut tubaab yi garab gii ñuy pikir jigéen ñi garab jigéen ñi bu ñu nekkee ci euh, mag bu nekkee ci mag seen comprimé yooyu seen comprimé yooyu goloo ko jàngale goloo ko jàngale golo daw ci àll bi benn góor benn golo moo am benn góor moo am golo jabaram di am doom jabaram di am doom te lool golo gee tëb golo gee tëb mel ni kuy xaru mel ni kuy xaru pour muy tëb ba sonn benn waay la ko waaj gone gi tee nga yëwi ko ba xam lu tax muy def lii ndax dafa bëggul fekkee man yu a déet yëwi ko ba mu ko yëwee rek gone gi fippu dem ca àll ba sàq benn bànqaas ñëw def ko ci benn kaas moom golo gi jox ko waa ji mu def ca ndox ndaw ca naan ko doom di juddu foofu kan moo jaar foofu borom aras moo fa jaar kon kooku dañ ko war a jaamu sans bëgg ca dara dañ ko war a jaamu te duñ ci yaakaar lu moom moo gën ci ñun moo tax ñu ko bañ a jaamu par la force ñu koy jaamu ndax ndax bu ñuy dox ci yoon wi ñoom tubaab yi naan nii seen loxo yi ndeyjoor bi mi ngi naan Allah càmmoñ bi naan Muhammad luñ ca man muy jaamu yàlla par la force. loolu muy jaamu yàlla par la force. sa loxo yaa ngi naan Allah. bii leen Muhammad. sa tànk bi naan Allah. bii leen Muhammad. loo ca man. wala. nga toog yaa ma xoo yàlla. doxuloo. doxuloo. ama ko loxo bi yëngu tuur. ama ko loxo bi yëngu tuur. moo xam. sama borom moo xam puus la moo xam président la moo xam Macky Sall la wala ku mu mënta doon et puis nga nekk sa réunion ba benn fexe ba ne jarax ci biir réunion ba dem ci président kenn nekk mu lakkal la ngay dàq bi bu loxo bi jógee rek Allah jóg na bu dellu ci Mohamed ñëw na fara force la loolu il faut ñu jaamu yàlla bu leen neexee ak bu leen naqaree wala weñ amul foofa ay weer la sama borom toog ba yàgg rek mu yëgal benn ruqu ca sa yaram mu xesan nga ba wala allah wala wala nii muy Muhammad kon yàlla amul kenn ku ko jaamu ñun nag ñoo am sens ñun julit mën a jaamu yàlla. si li ñu ko Mouhamed indilee waaye ñëppay jaamu yàlla ñëppay jaamu yàlla kon kontaan nañ bu baax. ñu ngi leen gërëm yéen waa Jokkul yëg nañ ñi ngeen bëggee daje bi ajaaratu loolu sàmm ku ñàkk kañaan la jotal nañu seen bëgg daje bi kontaan nañ ci yéen ci daraja yi yonent Yàlla Muhammad yàlla yàlla faj seen i aajo ci daraja yi yonent Yàlla Muhammad yàlla yàlla faj suñuy aajo defal ñu sutura dëkk bii yàlla fi naataange yokku ak dëkk yi ko wër yëpp yàlla fi faju aajo am bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Talla Badiane mi ngi sëriñ bi mu ne mi ngi lay nuyu bu ak say xarit ak say doom ak seen i dëkkandoo mi ngi nuyu borom dëkk bi ne am na ku fi ku fi dajeeg boromam. yëg nañ ne am na ku fi wàññeeku dajeeg boromam. yàlla yàlla jéggal ko. yàlla yàlla xaaree ko ajana. si dara yonent yàlla Muhammad. yàlla yàlla xaaral ko ajana. am na lu xew ci réew mi muy ay feebar yàlla nañ koy dégg te buñ ko gis mukk nag c'est-à-dire dañuy yonent yàlla Muhammad yàlla buñ ko gis yàlla nañu ci dégg doy yàlla buñ ko gis c'est-à-dire dañuy yonent yàlla Muhammad xam naa ne amul ci jaaxle moom yàlla xam na ko amul jaaxle ci feebar bi am na du ko wéddi waaye amul ci jaaxle te it mi di xamal ne tubaab ku saay saay la tubaab nag ku saay saay la mm-hmm. tubaab su bëgg a jaar sa diggante yàlla su bëgg a jaar sa diggante yàlla bu ci amul pexe bu ci amul pexe daf ku tiit ku tiit dootul lu baax ndaw dëgg ndaw. ku tiit ku tiit doo doo def lu baax. féeg tiitaange nga dañu ba xam lu muy demee. kon te fi mu nekk nii. tubaab ba bëgg nañ yàq diine. tubaab yi bëgg nañ yàq diine. façon yàq boo xam ne. bëgg nañ lépp loo xam ne. bëgg nañ lépp loo xam ne. jurit ñi dinañ yóbbu seen fit dinañ ba dootuñ mën a tey jaamu yàlla ba dootuñ mën a tey jaamu yàlla dañ ko def danaa benn dana ci nettali benn ci lay tëjee Maryamma Maryamma bintu Imraan bintu Imraan. yaay yonent yàlla Muusaa yaay yonent yàlla Isaa. yàlla. yàlla. dafa dogal. dafa dogal. yaayam. yaayam. hinnatu. da ku da ku baax. ba mu ëmbee rek. ba mu sama doom ji. mu bu juddoo sédd naa ko yàlla buy góor na nekk bëgg néegam yàlla bu néegam jàkka wala bilaal may naa ko yàlla ba mu juddoo far mu nekk jigéen. yaay Isa ibnu Maryam laa wax mooy jigéen di njëkk fóot régal ci am na avant muy ñëw kenn du fóot régal moom nag fóot na régal ca la ko jigéen ñi ba xale a ba Mariama juddoo di jigéen. ba Mariama di jigéen. mu ne ah, ah yàlla kii day jigéen la. ba tey baax na. yàlla a xam ne la. yàlla ne man maa gën a xam ne jigéen la. mu daal di ko may jox waa jàkka ja. mu daal di ko may jox waa ja. labbe yi la ko joxoon. labbe la ko joxoon. labbe yi yor ko baytil maqdis. labbe yi yor ko baytil maqdis. ku ñuy wax Sakariya. ku ñuy moo ko gañe ba mu nekkee baytil maqadis ba mu nekkee baytil maqadis bu xiifee bu xiifee ñamu aljana lañ ñamu aljana lañ koy indil ci lay lekk ba suur bu Sakariya indee la mu indi bu Sakariya indee la mu indi bu ko indilee beñe bu ko indilee beñe wala panket wala panket nekk fekk fa lekk yu neex fekk fa lekk yu neex yu dàq yim indi yu dàq yim indi mu ne an an laki haasa mu ne ko waaye yow anee laki haasa mu ne ko foo jëlee lii mu ne ko fan nga jëlee lii मर्यारीला सायू की fekkee yaa a ñëw bu fekkee yaa yéex a ñëw ko indi lu mu lekk bi waasitati Jibril bi waasitati Jibril ci lay jaaree ci lay jaaree ba nekk ca bañ ca nekkee ba nekk ca ba mat jànq am na buntu bu nekkoon am na buntu bu nekkoon ci jàkka ji bu nekkoon ci jàkka ji ca la daan jaaree buy génn benn bis benn bis mu buntu ba génn defutu tànkam defutu tànkam daan def ba mu demee ba génn rek. ba mu sama borom. sama borom defal ko tayul ard. defal ko tayul ard yi. ko suuf si leemal ko suuf si. tànk bu do bu do bu jégee benn jéego. rek. mu mën ñaar fukki mètre. lool sori ba day gaaw loolu nag sori ba day gaaw ba mu dem ba làqu nit ñi ba boo xam ne ba yegg ci benn boo xam moo fa nekk fa muy doxee noonu rek fa muy doxee noonu rek da xalaat fii fan la la gis benn xale bu góor bu rafet gis benn xale bu góor bu ci kanam bu taxaw ci kanamam mu ne ko inni mu ne maa ngi muslu yàlla ci yow mu ne ko maa ngi muslu yàlla ci yow in kunta taqiya su fekkee ku ragal yàlla nga bul ma maa ngi musulu yàlla ci yow mu ne ko déedéet man de aw ma soxla ci yow ne ko yàlla moom a yónni ci yow nee naa la ëmbal nga ëmbalee mu ne ko anaa la kii haaba mu ne ko waa man naka laay ëmbee walam yam saf nii basar walam aku baxiya musuma nuyu góor te musuma jegeante góor itam te it nag naka laa mën a ëmbee malaaka ma ne ko mbir mi mbiram yàlla la mooy def lu ko soob lu ko neexee ndekete diggante bi ëmb na ci biir waxtaan bi rek ëmb na Mariama xool Mariama xool boppam gisatul malaaka ma gisatul malaaka ma mu xool biiram mu xool biiram gis mu ëmb mu ne ah waykat ci ñëw na niñ ma óoloo ba dëkkal ma ca min baru jàkka ji ma dëkk fa tey ma bar fa yóbbu biir tey ma nar fa yóbbu biir yàlla ne ko uh, wattul wattutul. yàlla ne ko jàpp wattutul. demal ca tàn ëkk tàndar tàndarma gu wow gële. demal ci ëkk tàndarma gu wow gële. tàndarma gu wow gee. tàndarma gu wow gee. demal nga tëdd foofa. léegi nga am doom léegi nga am doom. ba muy yegg rek. ndox maa ngoog. yàlla ne ko àcca ndox maa ngoog. àcca tëddal ba muy tëdd rek. ay sa eh, juddu. sariyaan boobu ci saar ci saar bi. sariyaan boobu ci saar bi. ndox lay firi. isa juddu. isa eh, juddu. يا ليتني مت قبل هذا منان يا ليتني مت قبل هذا متين ام لوكا جاخال متين موم انداي مريم ام لوكا جاخال ام لوم راغال لول ام لوم راغال لول ني واي والله لي غاتلا لي غاتلا ci لي غاتلا ci ko teunk pour dama teunk yàlla ne ko ndox maa ngoo yàlla ne ko acca ndox maa ngoo lekk nag soo ko bëggee lekk nag soo ko bëggee li nga doon lekkee li nga doon lekkee da ci naan jeex na jeex na arrêté naa ko booba man rek nga ragaloon booba man rek nga ragaloon léegi nag danga maa ragal léegi nag danga maa ragal waaye ragal nit ñi itam kon nag léegi nag yow faw nga sonn ngir nga mën a dund boo sonn dootoo boo sonn dootoo dund exactement ku tiit ku ne exactement nag ku tiit ku ne ragal leneen dul yàlla ragal leneen dul yàlla coono ñëw na ci yow yàlla dana la ne. yàlla dana la wan ne. la nga ragal. la nga ragal. ci yow dara. man yàlla. man maa man ci yow dara. ragal nga ma boole ma keneen. ragal nga ma boole ma keneen. dana la jox sa kattan sa sa doole sa yëngatu ci ngay dund. waaye sa yëngatu ci ngay dund. mu ne ko waxu si ilayki. mu ne ko waxu si ilayki. bi gisee naqalati. tusaqin alayki. rutaban janiya. yëngatal bi. ba mu ko yëngatee rek coono yëngal ba rek ak jóg ba loola ca neexoon yàlla tàndarma gi sëq meññi wàññee ko ay wàccee ko ay meññeet mu cay dund ëmb ca yóbbaale yóbbaale loolu moo ko taxoon a gis nga ni Mariama ragalee lurul yàlla yàlla arrêté lam ko daan defal yàlla arrêté lam ko doon defal. tubaab bi loolu lañ xam tubaab yi it loolu lañ xam. ñoom léegi ñoo ñu gën jàng alxuraan. ñoom léegi ñoo ñu gën a sax jàng alxuraan. xam nañ ne buñ dara buñ tiitalee jullit ñi. xam nañ ne buñ tiitalee jullit ñi. sama borom dina dina am lu mu leen wàññi. suma borom dina am lu mu leen wàññi. ndax dootuñ dootuñ jaamu yàlla. ndax dootuñ jaamu yàlla. da ko teewlu da ko teewlu. kenn ku nekk. kenn ku nekk. coronavirus bi def na la problème tiital na la jaaxal na la yàq na sa julli mënatoo teewlu foo jëm mënatoo teewlu boo kabaree yaa ngi ci corona da nga kabar ba julli gi pare doo yëg ne julli nga boo wuttuwul ndax xalaat corona rek te corona bi dogalu yàlla yàlla ko fi indi dogalu yàlla moo jiitu dogalu yàlla moo jiitu corona bi kenn ku ci nekk yàlla dogalal na la bés oto dutal la ab lenn rek moo ko fi mën a jógee def lu baax def lu baax day yokku fan def lu baax day yokku fan def lu baax day yokku fan du ko utal limite def lu baax rek lay wax day yokku fan nañ defi lu baax te bëri astaxfirullah